jàngeen jëf démb tàngoon na jip ngir Ousmane Sonko réew mi quotidien di ñu xamal ni njiital pastef bi ci boppam dafa nekk ci résidence surveillée li ko waral mooy gannaaw ba ñu jàppee wotoom daal di toj vitre yi jëlee ko fa bàyyi force danu ko rek tere ngir mu daal di génn këram ndax takk der yi ñoo wër bërëb ba mu nekkoon ngoon gu métti bu ñu sukkandikoo ci source am mi nga xamante ne tamit dafa ñuy nettali démb ngoon si nu mu méttee ngir njiital pastef njiital pastef lu ñu ko def moo tax la tribune gis ni police ci boppam dafa taxaw tembee ngir di ko fitnal fitnal gi bokk na ci li libération gis moo di Ousmane Sonko dañ ko embarqué by force te ñu ko def bokk na ci waa BIP nga xamante ne dañu ko sànni sax gaz lacrymogène moom ak ñi mu àndal di ay awakaawam rax ci dolli ci ngoon si ba mu noppee ngir def conférence de presse dañu ko tere ngir mu daal di génn këram bis bi le jour di ñu nettali tamit nañu def ki nga xamante ne moom mooy njiital Pastef ak oto bi nga xamante ne dañu ko yàq vitre la ñu daal di toj jëlee ko fa buntu xatal ko ba pare daal di koy noot biir këram ci biir këram kon la sonk mu ju def déclaration ndax li ñu ko tere génn waaye tamit li ñu ko jàpp dugal ko ci biir auto police moo tax enquête jàpp mi ba démb moom Sonko li ñu def nag démb Ousmane Sonko Walf Quotidien daf ci jàngatee nii at fitna la muy violence inouïe bi nga xamante ne dañu ko teg ci ndoddu opposant bi yéenekaay bi di yor yor di ko ci feelu gis ni yëf yi yemul rek ci violence ndax suñu naataango yi dañu jàpp ni haine bi nga xamante ne nguur gi daf ko def kii di Ousmane Sonko dafa weesu sax wàllub kujje waaye dafay tax rek ba ñi nga xamante ne yoo féete ci nguur gi yenn saa ñu daal di tàggoo seen sago ndax dara weesul li nga pastef bi coowal Mame Mbaye Niang ak usmaan Sonko nag mujj gi démb dafa mel ni ab toolu gaz lacrymogène noonee la ko le quotidien le quotidien daal di jàngatee ab procès la ñu doon xaar ni ki démb waaye mujj gi sud quotidien di ñu xamal ni kon lu ñu ci jàngat bëri na lool ci salfaañe wàllub démocratie waaye tamit fitnaal gi nga xamante ne kon teg nañ ko kii di Ousmane Sonko yéene kaay groupe sud communication di ñu xamal sax ni bile atte daal nañ koy toxal ba fukki fan ak benn ci weeru mars bi ñu dëgmal li xew démb ci ndakaaru nag ak li ñu teg Ousmane Sonko Sonko société civile bi yëpp toog di ci teg ci biir réew mi quotidien seeni kàddu ji ca jip ñu mel ni kon dañoo gis ni fii réew mi tollu jamono ji daanaka ligne rouge bi maanaam dañu ko daal di sax dépassé ci biir yéenekaay 24 heures société civile bi tamit lañ ci daal di jox kàddu bokk na ci Alioune bi nga xamante ne dafa gis ni fi niveau démocratie daal di toll léegi dafa mel ni dafa wàcc sax ba zéro maanaam amatul sax ci mim réew bokk na ci li waral jàngat bi mooy criminalisation bi nga xamante ne dañ ko def opposition ci réew mi gannaaw Alioune Tine Birahim Seck tamit jàngat ni fi Sénégal toll tey moom dafa sax ñaaw ci ay gët ci biir yéenekaay bi ñu ciy fësal tamit kàddug Aminata ture mi nga xamante ne moom dafay ñaawlu li ñu tere Ousmane Sonko mu daal di def ndajak taskatu xibaaram ca jamono ji nga xamante ne ki mu ko sekkal di Mame Mbaye Niang ak ñi mu àndal ñoom ña nga doon janoo ak taskatu xibaar yi te dara fekku leen ca li am ba am dossier bi ma nga fi tege ndax l'observateur dikkaat na ci anamu yaa ci enquête bi nga xamante ne division des investigations criminelles dañ ko def ci mbir mi réquisition bi nga xamante ne polis def na ko ak tontu bi IGF daal di indi ci rapport bi Macky Sall mujj na indi leeral ci élection présidentielle yu ñu dëgmal Rewmi Quotidien Enquête Quotidien Source A ak yeneen yéenekaay yépp dikkaat nañu ci bis bi nga xamante ne kon moom la ñu daal di taamu ngir amal fa élection présidentielle bi muy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 critique yéenekaay dikk ci élection yooyee nga xamante ne kon léegi bis bi xam nañ ko waaye suñu naataangooy luñ ci jàngat mooy bis bi jàpp nañ ko gaa waaye ba léegi mënaguñu jàpp ana ñan ñooy doon candidat ci boobule présidentielle ak lim ci mënti doon daal date bi jàpp nañ ko moo tax bis bu yàlla sàkk nag mën nañoo tàmbalee wàññi jamono ji ba keroog ñuy egg ci daj dëpp ga donte xamaguñu ana ñan ñooy doon candidat ba ci sax njiitu réew mi Macky Sall noone la ko L'As Quotidien daa di xamle direct news di ñu xamal ni Serigne Fallou Mbacké moom la askanub murit di daa di fàttali ni ki tey ji ci màggal Kazu Rajab bi nga xamante ne daañu ko amal ci dëkk bu tedd ba di Touba ca Bayern de Munich gi mu nekk Sadio Mané démb dalal na kii di Yankuba Jatara jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gu-yaram record yéene kaay moo ni xamle ci biir yéene kaay bi attaquant suñu gayndey mi nga xamante ne noppi na ngir delluwaat ci terrain bi gannaaw gaañu-gaañu gu métti gi nga xamante ne daboon na ko ba mu ñàkk coupe du monde bi ñi ñàkk coupe du monde bi ba jamono ji kenn xamul sax fa ñu nekk stade quotidien xëy tey def ci gest bu yaa lim seen tur bokk na ci Moussa Konaté Papis Demba Cissé Diafra Sakho Kara Mbodj ba ci Salif sànni ñoom ñëpp ñoom ñëpp di ay joueur sénégalais yi nga xamante ne ñu ngay football ba tey waaye kenn yëgatul sax ana ci lan la ñu nekk Reug ak Sa Thiès nekk ci waajal seen combat Samb di wéy ci ay jàngat yi nga xamante ni moom ngi ko ci amal dénk tey kàddu gi kii di du Ali Ndiaye li mu gis mooy rëg-rëg ci boppam dafa mel ni mooy favori ci bile combat ndax moom li mu jàpp mooy mbëru caaroy bi ci boppam mooy ki gën a complet ndax boo jëlee Sa moom dafa ñàkk compétition